benn tesalonik benn wàll ci lindiil di bataaxal bu jëkk bi yàlla may pool mu bind ko waa tesalonik nun pool silwaan ak timote nu ngi leen di bind yéen mbooloom ñi gëm ci dëkku tesalonik te nekk ci yàlla baay bi ak borom bi yeesu kirist ne yiw ak jàmm ànd ak yéen bët bu set nu ngi sant yàlla ndax yéen di leen boole ci sunuy ñaan duñu noppee fàttaliku ci kanamu yàlla sunu baay jëf ji judd ci seen ngëm liggéey bi tukkee ci seen mbëggeel ak muñ gi sosoo ci seen yaakaar ci sunu boroom Yeesu Kirist mbokk yi yéen ñi yàlla bëgg xam nanu ne yàlla tànn na leen ndaxte xabaar bu baax bi nu leen doon yëgal yemul woon ci ay wax rekk waaye àndoon na ak kàttan ak xel mu sell mi ak kóolute gu màgg xam ngeen suñu taxawaay ci seen biir ngir seen njariñ te aw ngeen suñuy tànk ak yu borom bi ci li ngeen nangu xabaar bu baax bi ci biir fitna yu metti ànd ak mbég ci doole xel mu sell mi noonu ngeen daldi nekk royukaay ngir ñi gëm ñépp ci diiwaanu maseduwaan ak yi ndaxte kàddu boroom bi jollee na ci seen biir te yemul ci maseduwaan ak akaay yi rekk waaye seen gëm yàlla siiw na fépp matu sax ñu di ci wax dara ndaxte ñoom ci seen bopp ñooy seede li sunu ngan def ci seen biir maanaam ni ngeen dëddoo xërëm yi jublu ci yàlla te di ko jaamu moom mi yàlla aji dund ju dëggu ji te ngeen di séentu doomam bàyyi ko asamaan moom yéesu mi mu dekkal te dinu musal ci merum yàlla mi nar a ñëw